bon c'est une situation qui est dafa difficile parce que la justice dafa un endroit stratégique dans la vie des populations rien que nous au niveau de la commune de Djeddah Nous avons avons dossier dossiers yu extrait de naissance ou de mariage Nous avons déclaré à à la police au tribunal donc dossiers dossier est bloqué au-delà du jugement les tribunaux ont dafa am ay pièces administratives qui sont très importantes xam ni dafa am une fonction administrative importante tribunal donc Lolo euh, wax fa dëgg qui donc euh, dafa paralyser dans une large part donc le fonctionnement de notre société Ce que je veux dire. mi ngi ci comme li amone ci enseignants moy gouvernement bu té téye sam parole gouvernement bu sam ay diglem enseignants yi gissone bañ faire sen grève ba mu metti bañu sauver année bi in extremis sauver ko in extremis dañoo def ay concertation ay négociation ak gouvernement bi président Macky Sall gouvernement bi il faut accepter des, des euh, faut faire des promesses réalistes et réalisables. nous signons des promesses réalistes et réalisables bañ àggee ci matérialiser ko ca gouvernement ko gouvernement bi qui mu won defu ci dara mu wat crise ci enseignement même chose tay qui am ci surgis moy dañoo démon grève négocier ak ministre de la santé négocier ak ministre du budget ba gouvernement bi signé ay accord ni lii buñ ci àggee dinañ ko def ñu àgg ci gouvernement bi def ko kon nag responsabilité yi aussi nag ay nit bu bu ñuy xeex bul xool rek a fayu da xool fa xeex ba tàmbale te fa xeex ba tàmbale mooy ay ay accord yoo xam ne gouvernement bi daf ko signé te respecté wu ko loolu nag du ay menace ni ko euh, ministre Malick Sall di defee ay menaces de radiation bander les muscles euh, le le surgis est réglé, régler est réglé c'est de la responsabilité même la guerre mondiale qui négociation les mujj maintenant si on négocier nañu négocier ci deg, nañu négocier ci ci respecter parole et j'appelle donc le gouvernement euh, en particulier le ministre Malik Sall me def preuve de plus de réalisme def preuve de plus de euh, wani khatar gimi muy ta xamni du du khatar du xëtër du doole mooy régler lolo. état bo ci nekkee am yenn responsabilité da ngay am tuuti souplesse da ngay am tuuti esprit de négociation da ngay xamni ni ña ngay waxal sa ay nawle lañu c'est pas parce que da nga nek sen ministre que euh, que da nga leen imposer ta volonté mais véritablement nga xamni euh, difficulté bo ci nekkee voilà ñaan moratoire waxtaan bu jubo parce que syndicaliste aussi nekkuñu ay extrémiste du ni dañuy am tout tout de suite même bu dee dañoo war revenir sur les négociations ne Malick Sall wat lu bari ci li nga xamni xatar gi mi té négociation yi jox wa SYTJUST lenn ci li ñuy li ci des mu pour que véritablement ñu être dans une euh, administration de la justice un peu plus sereine un peu plus diligente et un peu moins conflictuelle mais du conflit rek réglé je pense que le gouvernement de Macky Sall a trop été dans le conflit ces huit dernières années et là nous bi ñu citoyen syndicat nit ñi waxal ay ay nawle lañu wante duñu ay jaam yoo xam ne dañu dañu war a nappaaj